Léopold Sédar Senghor libération yéen kaay nan man ku gàtt dégg-dégg dégg ni sunu doomu Sénégal ya daal ña ngay yëgg ca Espagne waaye ña ngay faatu ca wax ya turbine yéen kaay naan kon déet yàggul dara barki déem boo njaay guddi àllarba jàpp alxamis ab gaal boo xam ne mi ngi bàyyeekoo woon ca gànjool doon dem nag fekki geneen gaal gu nekk ca digg géej ga ngir bëggoon yekkale ko ci gaal gu mag yéen bi naan man gaal gu ndaw gi ci boppam dafa daal di këpp ñu bari nag daal di cay réer ci saa si moom su ndaw soo xam na soxna ak xale yu ndaw yoo xam ne ci gaal gu ndaw ga la ñu nekkoon libération yéeni kaay naan maan suñu doom yaa ngi jeex ay nit yu bari daal di faatu yéeni kaay bi nan maan yeneen ñaari gaal yoo soo goolee seen lim ñeenti téeméer fukk ak juróom ci xale di doomu Sénégal daal dinañ leen di gàttandu ca Maroc ca gaal ga mani la ñetti nit faatu ca daar daar am ca ñu bari ñoo xam ne am nañ tey gaañu gaañu gaal gi nga xam ne ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru octobre bii ko gàttandu woon moom it secourir ko ca Dakhla te mu bàyyee ko woon ca Kafountine ñu bari daal dinañ ñuy faatu ca gaal googee gannaaw ba leen yóbboo l'hôpital juróom ñett ca ña faatu moom Basul lañu dëkk Ibrahima Ndong maire bu Basul ne gaal ga ci boppam dafa daw juróom benn fan ci géej gi amatul carburant ñu toog fukki fan ak ñeent amuñu ndox amuñu lu ñu dundee moo tax xale ya doon faatu benn par benn bu seen consul général bu senegal ca dax la ne gaal ga bàyyee ko woon yar yegg si dax la bokkut ak gaal gi nga xam ne ñaar fukki fan a ngi nii ñu koy wër nañu wër nag ca pegg national bu quai de pêche yi ne lu toll ci junni ak juróomi téeméer ci nappkat saa si tembe ñi ngi ci kaso yi l'enquête naan konte moo ne day lañ ca xamul mooy ña nga xam ni yéegoon nañ ca gaal ga ba gaal ga suuxee ñu rëcc dañoo demaat seeni kër ne patt waxuñu fi mu ne nag ab l'enquête la ñu daal di ubbi ngir xam ñaata laa ni la ñoo ñàkk seen bakkan ci gaal googee le quotidien le quotidien naan alerte am na de direction de l'administration pénitentiaire daal moo ko daal di def daal di xamal Aïssata Tall Sall ministre de la justice ne quarante ci degré Ousmane Sonko yemu ca ma ngay wàccu réew mi ko di ñee naan kon Ousmane Sonko day jamono ji la daal di nay wopp lool te woppam gi ci boppam dafa daal di fuite nag l'observateur naan administration pénitentiaire ba day ma ngay xamal ministre de la justice naan kon Ousmane Sonko fi mu ne dafa daal di wopp bay déliré nag di xëm ak di ximmi le témoin yéen kaay leen attention de mbaadu nag fuite gi nga xam ne Ousmane Sonko woppam gii bàyyeekuwul ci nguurug Sénégal lu ci man ci am ab lettre boo xam ne directeur bu administration pénitentiaire bi jébbal na ko ministre de la justice niki noonu document boo xam ne mi ngi bàyyeekoo ci l'hôpital bu principal bu Ndakaaru xamle na ni moom Ousmane Sonko ci boppam daal dinay wopp te wopp gi daal dinay metti ba gi dayoo ñi ngi wax ne ma ngay tàmbalee déliré moom Ousmane Sonko ba naan nañ ko delloowaat kaso le témoin naan man procureur fi mu ne dafa ubbi ab l'enquête ngir xamle dëgg-dëgg lan moo waral na document yi nga xam ne day xamle état de santé bu Sonko te mu nekk loo xam ne warul woon feeñ ñu daal di koy gis ci réseaux sociaux yi moom procureur de la république ne daar daar ubbi nañ ci l'enquête te képp koo xam ne takkee nga ci coowal kayitu Ousmane Sonko yi dana metti ci yow wala tribune yéen kaay naan maan booba Serigne Mountakha ma ngay xam leen ni politique moom bugg ko jégg ci diwaanu Touba daar daar moom Serigne Mountakha nee na audience yi ngir candidat yi moom na dak xamle na ni jamono jiital na leneen lu wàllu politique moom xalif bi di sàkku nag ci politiciens yi ñu bàyyi ci dalu xelam jàmmam te naan ki gën ci Sénégal yàlla na falu 24 heures naan maan waaye présidentielle dana am ca Touba sëriñ bi ne nangul naa leen ko waaye bu yi élection weesoo bu élection amati biir Touba tribune naan kon élection yoo xam ne nar naa métti ci gouvernement gi de mi ngi mel ni ci ñoom ku tëb dal cib xal dese na la geneen tëb fi ne nag askan bi ci boppam ñoo ngem bu fas yéene jaamaarloo ak gouvernement gu Sénégal te leen leen lebal ci coono ña leen ko fas yéene fay nag ci élection présidentielle a di xar ñaar l'exclusive yéene kaay naan man xamal la nag jafe-jafey Amadou Ba ngir élection présidentielle yi bu ngeen nee mën na jàll premier tour it naxee mbaay la 25 février ma ne la premier tour lay doon niki 2000 ak 2012 ñaareelu wërngal mënta ñàkk ci mim réew mënu nag am coalition présidentielle boo xam ne premier ministre ba woon Mahammed Boun Abdallah Dionne gàddaay na Aly Ngouille Ndiaye gàddaay na ngeen ni premier tour da ngeen di am ndam mënta nekk te bu weesoo ñooñee nga xam ne dañoo sempeeku dem seen yoon am ci biir ñoo xam ne nag boo Amadou te xamu ko xoolal ma Abdoulaye Daouda Diallo dañu koo forcé Amadou Ba te Cheikh Omar Anne na muy ñaqalee Amadou ci fekk Abdoulaye Ndakaaru gi du Abdoulaye Diouf Sarr mooy ñaqal Amadou Ba Moustapha Diop ministre de l'industrie du mooy ñaqal Amadou Ba ca Louga te la daloon Karim Meïssa Wade jamonoy Abdoulaye Wade lii daal moo nar a dal Amadou Ba ndax nag même contexte yi la Sénégal gu compliqué ngir sénégalais yi ndaw yi nga xam ne amatuñ yaakaar ci réew mi ña ngay daw barsa far yegg barzak ñu jàppoon fi Sénégal ma ne la wan gannaaw Karim Meïssa Wade te loolee boo moytul nag mën naa dal Amadou Ba à tout moment turbine yéen kaay en tout cas ca Sandiara ak i responsable bu Gueye Diop xam nga Serigne Gueye Diop moom candidat la ci élection présidentielle yi te Aliou Ngingue mi nga xam ne mooy premier adjoint daal dinay gàlloo yeneen conseil yoo xam ne daal dinañuy xamle ni ànduñu ak Serigne Gueye Diop ñoom APR la ñuy wéy di xeexal di xeexalit Amadou Ba coow li coow li mooy fasunu yéen a ñaqal benn yoon Serigne Gueye Diop Alpha Thiam moom it candidat la ci réewum Sénégal ci présidentielle yi daal dina sama bëgg-bëgg moom moo di Sénégal goo xam ne mooy moom boppam Sénégal goo xam ne sénégalais bu ne mën na caa gis boppam Sénégal goo xam ne askan wi daa ñu xam dëgg-dëgg ni kii Sénégal mooy Sénégal gi ñu am yaakaar Dakar moom Malick Gakou ci 24 ne élection présidentielle yi day bu yàlla defoon ne yegguma deuxième tour danaa lëkkoog ñëpp ba mu des Amadou Ba candidat opposition bi laay àndal rugum rugumee ñoom daal dem ci yooyu la élection tribune naan man boobu mairie bu Rufisque Arona Sarr day ma ngay xamle ni caxat-caxatee ba fa am yéeme na lool moom directeur de la promotion de la bonne gouvernance ne nañu yoree mairie bi daanaka scandale la téeméer ak juróom fukk ak benn ci million ñu ne carburant la ñaari téeméer juróom-ñeent fukk ak ñaar ci million ñu ne dépense diverse la ñaari téeméer ak fukk ak benn ci million ñu ne dañ koo jàppale ay nit fukk ak juróom-ñeent ci million ñu ne trésor la juróom benn fukk ak juróom-ñeent ci million ñu ne dañ koo jóbbu ci jumaa yeeg église yeeg ñoom seen ñaar fukk ak juróom benn ci million subvention ASC fanweer ak juróom benn ci million ñu ne frais d'hôtel ak ma ne la lii lépp xaalis bi nañu leeral benn par benn fu mu dugg ndax nag coow li li moom moo di dugal sa gafa mi ngi ciy xeeñ aaroona ne bon guvernance ci boppam moo amul ci maire bu Rufisque point yéene xëy di sargal doomuk Tëngéej Ismaïla Madior Fall bi nga xam ne diplomatie da cee mën mbapat ci terrain bi ba ci droit constitutionnel ministre d'état ñaari yoon xeexal Sénégal fas ko yéene xeexal saa si tembe ca bitim réew l'évidence yéene kaay naan maan boobu port autonome bu Ndakaaru day ña fas yéene soobuwaat ci grève goo xam ne nar naa ci sénégalais yi ndax crise boo xam ni ma nga gën a métti ci port autonome bu Ndakaaru te lépp nee ñu dara waralu ko lu dul tëleeg munta gaas yi waxtu woowu yéene kaay naan maan Abdoulaye Dieng ma nga dem lëkkaloo américain ngir jooyante aéroport international Blaise Diagne bu Ndakaaru turbine naan maan fii ci Parcelles Assainies mouvement Allo Patrie bu Cheikh Ahmadou Bamba Diop ma gérer te ba maar day taali lu ne am ci réewum Sénégal ak lu mën a mbokk yi ñu ñaan jàmm te yendoog jàmm jërëjëf Mantoulaye Thioub Ndoye fii la ñuy daal képpee suñu bloc d'information la matinale dinañ ko wéyandi